Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et set si Setsima TV xibaar yu wér te wóor mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfalaat encore une fois seen mbégte suñu bànneex ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen yegg si leen ak jàmm uh, fii ci Setsima TV xibaar yi dañu koy dooree ak ki nga xamante ni bi moom moo Mia Guissé mi nga xamante ni bii nee naa la moom boobee ba tey ma ngay avancé ci fi nga xamante ni bii moom moo di musique sénégalaise ginnaaw ba mu tàqalikoo ak borom këram boobee nga xamante ni bii moom moo di No Face Mia Guissé bokk ci artistes yi ñu gën a ràññee fii ci Sénégal waaye tamit nag bokk ci artistes yu jigéen bi ñu gën a ràññee fii ci euh, Sénégal Mia Guissé nekk artiste bi nga xamante ne bi boobee ba tey kenn euh, dégg ko ci lu ñaaw waaye nag la ñu koy waxal saa su nekk ci lu ëpp mooy que colin gi nga xamante ne bi mi ngi koy col ak par rapport ak bu njëkk ba nga xamante ne bi mu nga doon def di liggéey ak ki nga xamante ne bi moom moo di borom këram Mia Guissé wax nañ ko nee nañ di avancé ci musique sénégalaise ba tax muy teg li nga xamante ni moom moo di ay programme gannaaw ba mu defee euh, euh, tournée nationale dem ci quelques région moom mi nga xamante ni moom moo di Mia Guissé di préparé dem fële ca Paris daal di mu bokk ci concert yi mu gën a fonk ci concert am yi Mia Guissé nag daal di def li nga xamante ni moom moo di ay visite de proximité seeti ku ci mel ni Youssou Ndour mi nga xamante ni bi mën nañ ko fii ci euh, Sénégal le roi du mbalax waaye tamit nag moom mi nga xamante ne moom moo di Youssou Ndour nekk artiste bi nga xamante ne bi dafay conseiller jeune talent yi waaye tamit nag euh, jàpp leen comme ni mu jàppee ay doomam moom mi nga xamante ne bi moom moo di Mia Guissé daal di dem seeti ki nga xamante ne bi moom moo di Youssou Ndour euh, pour mu dégg ay kàddu ci Paris googe nga xamante ne bi fa la war a jouer waaye nag Youssou Ndour daal di koy Euh, euh, accueillir bu baax a baax a baax daal di koy dénk ay kaddu waaye nag xamal ko ne ko nekk boo gëmee sa bopp rek kenn du la euh, téye ci biir loolu moom yaa gisee mu doon feete li nga xamante bi moom moo di anniversaire ñu def ko anniversaire boo xamante ne surprise la ko ko nag ñoom ñoo di seen waa kër plus particulièrement ci frère bi nga xamante ne bi jox na ko ay cadeau yu takku lu ci mel ni dix millions ak yeneen yi nga xamante ne bi mën nañ ne kenn mënu ko wax mbokki internet yi Mia Guissé di wone li nga xamante ne bi moom moo di ak contentement am ci ay fansam waaye tamit nag ci seen waa kër yi Mia Guissé moom mais mbokki internet yi ñu leen wax ne moom moo xewle ci fële ca Paris di préparer li nga xamante bi moom moo di concert bi nga xamante ni bi bokk na ci concert yi mu gën a foog Setsima TV bokk yi xibaar yi aussi dañuy continuer ak moom ci li nga xamante ne bi moom moo lëmbee internet bi ci li nga xamante ne bi bokk na ci li nga xamante ne moom moo gën a faar gën a viral ci eh, internet bi muy lomotif bi nga xamante ne bi ñu ngi ci tudd ay mbër yi nga xamante ne bi ay mbër yu mag lañ bu ñu ay ay mbër yu mag bokk na ci ay mbër yi nga xamante ne bi eh, bëri nañ ay grand combat te ñu siw loolu xamal eh, mbokk yi ba tey nag li nga xamante ne bi tey moom moo di le motif aussi ñi ngi ci jiiñ ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo di ay reporter yu jigéen ñi nga xamante ne ñoom itam ñi ngi ci euh, le motif yi ba tax na mu def na viral ba tax na nekk na euh, vidéo yi nga xamante ne bi nag génnagul waaye gars yi ñu ngi koy laam-laamee sax ba cité si sax ay mbër yi nga xamante ne bi euh, kenn ki ma nga dëkk fële ca jàmm gën waaye moom tamit génna daal di setal boppam ba mu set wecc waaye tam nag reporter bu jigéen bi nga xamante ne bi ci làmb lañ ko xamee moom nee na képp ku am ay vidéo na ko publier ndax moom doxu ci lu ñàkk fayda ba mu nekkee ci axlu làmb boobee ba tey Setsima TV mbokk internet yi ba tey xibaar yi dañuy wëy di ànd ak yéen ci euh, meurtre bi nga xamante ne bi moom lañ doon wax naan moo am fële ci euh, Sacré Cœur mbokk yi nekkate fausse information la waa ji nga xamante ne mu ngi tudd euh, Amadou euh, Fall Amadou Fall moomee nag dañu ko moom nag dafa def accident fële ci yoonu Sébikotane bi ñu joxe information ne dañ ko fekk ci biir otoom fële ci Sacré Cœur daal di koy rey waaye nag seen waa kër ñooñu xamal nañu information boobu baaxul moom mi nga xam ne moo di Amadou Fall dañu ko dafa def accident fële ci yoonu Sébikotane bi mu nekk li nga xamante ne bi tey mbokki internet yi comme niñ koy waxee nee nañ accident yi mi ngay fay di wéy fii ci Sénégal waaye tamit nag mu nekk li nga xamante ne bi boobee ba tey gis nañ ne dafay gën di yokku ndax mënuñoo jël li nga xamante ne bi moom moo di sécurité jël ay matuwaay waxtaan ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo di chauffeur si nga xamante ne bi ñi ngi daw ndax boo xoolee matukaay bu nekk jël nañ ko waaye terewul li nga xamante ni moom moo accident yi mi ngi gën di wëy di dem mbokki internet xibaar yi ñu leen indiloon mi ngi noonu fii rek lay xewee sur Setsima TV di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf